madame Ramatoulaye Ndiaye Diallo ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay monsieur Gomis. yow jàngalekat nga di la fàttali ni kon yow yaa jiite bureau genre promotion bi ñeel jigéen ñi ci euh, ministère de l' nationale nga bokk kon ci réseau bi ëmb jàngalekat yu parti bi di APR. réseau boobu sax ci seen ndaje assemblée général ñu nemmee ko fa coow lu rey euh, pëccëxoo bi waaye tamit kàddu yu ñagas yu ñuy dégg ndax ñu ngi koy gis sax ci réseaux sociaux yi lan moo waraloon coow li. waaw monsieur Gomis maa ngi lay remercier ci dalal bi ngeen ma dalal tey ci seen antenne bu mi FM mhm. may nuyu seen i auditrice ak seeni i auditeur mhm. di leen ñaanal weeru kooru jàmm ak salaam mhm. nga may ma aussi ma nuyu Fatou Thiam Ngom bu baax a baax a baax voilà donc euh, pour euh, problème mu réseau bi ngay wax ni dëgg la fan yi ci ginnaaw muy mercredi passé dañoo amoon benn AG siège u APR mais ñëpp gis nañu AG bi lan moo si mujj loo xam ne vraiment nekkul luy honoré jàngalekat yi loolu lañ fa constaté ñun ñëpp nag ñu di ko ñaawlu te di assumer suñu responsabilité pour wax ne li li am keroog kenn ku nekk si ñun rek am nga ci part de responsabilité. Mhm. parce que ay mag lañu mais aussi ay éducateurs ñu ñun de parents yi dañu wóolu dénk ñu seeni doom pour ñu jàngal leen donc am na leneen lu ñu war a def ci bopp xale yi lu dul ay violence donc li xew keroog. vraiment ñu ngi koy ñu ngi koy ñaawlu loola tax ñuy profité ci seen antenne pour jéggalu son excellence le président Macky Sall parce que du lii lay xaar si ñun li muy xaar si ñun mooy ñun jàngalekat yi ñu taxaw taxawaay boo xam ne dañu koy accompagner comme niñ koy yàgg di defee nekk ci wetam jàppale ko ci liggéey bi muy bi bi muy liggéey mais li muy xaar si ñun nekk li nga xam ne malheureusement gis nañ ko keroog ñu koy jéggaluwaat di jéggalu peuple sénégalais bi yëpp. lan moo tax coow li ba tey pënd gi wëreegul ci biir réseau bi nga xamante ne daanaka ba Youssou Touré mi nekkoon coordonnateur bi ne def ci rocceeku ba léegi xëccoo lañ ci nemmeeku. waaw loolu moom dëgg la parce que monsieur Youssou Touré ñu di ko nuyu bu baax a baax monsieur le ministre moom moo nekkoon ci bopp réseau bi président de la république moo ko fi moo ko fi tegoon. mais seetlu nañ ne dem nañu ba benn moment moom ci boppam nee na réseau bi intéressé tu ko mu mu jël ce qu'on appelle il léegi depuis moom bi mu jëlee recul boobu dafa am nag ñoo xam ne tey jii ñoom ñooy taxaw pour di wax di jëf ci turu ci turu jàngalekat yi ñoom aussi noonu ñu koy defee dafa mel ni dafa am ñu ñuy ñu ñuy beddi parce que dafa nekk peut-être groupe boo xam ne ñoom ñoo jóg tey ji taxaw ne xëy na ñoom ñooy doxal réseau bi ñun bañuñu sax loolu parce que réseau bi ñun ñëpp ñoo ko ñoo ñoo ñoo ci bokk yépp mais li ñuy ñaawlu ci seen comportement mooy le fekk que ñoom rek ñu bëgg beddeeku di jéem a gérer fonctionnement réseau bi parce que réseau bi nag dafa nekk réseau boo xam ne dafa implanté wu dans l' ensemble du sur l' ensemble du territoire national département boo dem di nga gis réseau départemental bi mu nga fa commune boo dem di nga gis ne réseau communal bi mu nga fa donc dañoo war def une gestion inclusive ñun ñëpp ñi nga xam ne ñoo ko séq kenn ku nekk da nga am wàll ci mbir mi bu ko defee ñu ànd de façon collégiale de façon inclusive et démocratique ñu ànd euh, gérer suñu réseau bi mais mënuñu nangu tey ji benn groupe nit rek taxaw ne ñoom ñooy dox ñooy wax ci turu euh, camarades yi nga xam ne ñu ngi nekk à l'intérieur euh, du Sénégal loolu rek la ñuy mais encore une fois mais préciser que nekkuñu ay noon nekkuñu ay adversaire parce que ñun ñëpp ñun ñoo bokk liggéey bi seulement démarche bi moom la ñuy ñaawlu. yow ci ban tendance nga féete. Ah, euh, féetewu ma ci ci tendance man nekkuma ci yooyu man daal fi nga xam ne dëgg gi foofu la féete wax dëgg neex yàlla man foofu foofu laay féete dëgg gi mooy lan mooy ñi war a bokk ñëpp nañ leen boole parce que dañu gis ne am na ñoo xam ne dañoo nekk jege président de la république nekk palais. di am ñu ñuy woo am ñu ñuy bàyyi léegi ñoo ñuy bàyyi da dañuy frustré loolu moo indi problème bi mais bu ñu wooyee ñi ñuy war a woo ñëpp parce que affaire bi ñun ñëpp dañ cee am wàll su boobaa problème du am boo déggee coow leeg xëccoo beeg loolu lépp foofu la coow li jóge di woo ñi di bàyyi ñi bu ñuy woo nañu woo ñëpp parce que kenn ku nekk rek tey jii réseau bi sa bébé la parce que ce réseau là nous l'avons vu naître c'est notre patrimoine donc suñu warugar mooy ñu ñu préserver ko ñu téye ko bu baax a baax a baax a baax te am na loo xam ne bu ñu ko seetaanee aussi réseau bi dina dinañu rëcc jóge ci sunuy loxo te loolu aussi mun mënuñu ko nangu parce que nag réseau bi ñun ñëpp ñoo ci bokk yem taxawaay. Hmm. réseau bi ci boppam xëy na euh, waralul coow li waaye euh, poste njiit la muy coordonnateur bi lan nga jàpp ni moo waral xëccoo bi yëpp ndax dafa am liñ ciy am. non non man gëw ma ne sax am na am na luñ ciy am xëy na ñiy agité wu yëpp xëy na comme président war nañu nomel ku bees parce que gis nañ ne changé na yeneen structure yëpp daf leen changé seen coordination. changé na COJER changé na mouvement des femmes changé na CCR la la convergence. Ah, des cadres yooyu dafa am ay privilèges ñuy gis ñi koy jiite ñu am. waaw comme changé ñun ñooñu daal daf ñu war a changé sunu coordination réseau hmm. mais man gisuma ci ne xëy na am na ay ay privilèges yu ci am parce que réseau bi subvention lañ doon am de cinq millions par mois. Hmm. te subvention boobu gis nañ ne bi coow li commencé léegi président daf ko suspendre daf ko téye. loolu d'ailleurs moo waral que nit ñi dans les régions dans les départements dañu sonn pour mën di dérouler seen i seen activité parce que nag soo amul moyen doo mën a dérouler normalement ces activités loolu mooy problème bi mais gëw ma ne xëy na privilège am na ci xëy na poste coordinateur bi kay moo tax rayante bi moo tax xulo bi mu lool moo war a tax pour vraiment siffler la fin de la récréation le président de la république son excellence monsieur Macky Sall daf ñu war a nag nomel benn coordinateur wala benn coordonnatrice parce que nag jigéen ñaa ngi fi taxaw nag takk hmm. lool nag am compétence yi am taxawaay bi ma ne mbaa du candidate nga ah pourquoi pas pourquoi pas je remplis euh, je, je remplis les critères donc je peux bien être candidate euh, waaw. réseau bi ci boppam enseignant de la l'APR lan mooy seen liggéey. waa xam nga réseau bi fi koy xaar mooy muy liggéey pour l'intérêt exclusif des camarades enseignants. ñu bokk ci muy liggéey aussi jàppale président de la république ci liggéey bu am solo bi nga xam ne moom la nekk di liggéey ci biir Sénégal te ñëpp teg ci seen bët. donc réseau bi daf dañ koy xaar tey mu taxaw di def ay proposition yu concrète pour vulgariser réalisation yi nga xam ne monsieur Macky Sall son excellence mu ngi koy def ñu ngi koy xaar également pour mu gérer la carrière des enseignants parce que gis nañ ne enseignants yi dañu am ay problème mu validation am ay problème mu avancement donc réseau bi foofu lañ koy xaar mais xaaruñu ko ci ay xuloo ak ay xeex ndax da ngeen ciy taxaw tamit enseignants yi nekk ci opposition bi ñu bokk ci opposition. mais waaw bien sûr parce que tamit enseignants yi benn lañ enseignant moom enseignant la amul enseignant parti APR amul enseignant beneen parce que tey jii ñun parti euh, euh, enseignant APR yi lu ñu xeex tamit tey jii bu ñu koy am bu ñu koy bokk aussi ñun ak sunu nawle enseignant yëpp ñun ñoo koy bokk newul ne loo xam ne la dañ koy defal enseignant APR bàyyi beneen enseignant parti ñun ñëpp benn la ñu wax naa ko sànq la famille enseignante est une et un. indivisible donc bu ñuy liggéey ñu travaillons pour l'inté matériel et de tous les enseignants. Hmm. ci fan yu wees njiitu réew mi dëggalaat na ko sax ci ndaje euh, conseil présidentiel bi lu jëm ci wàllu xëy ñu ndaw ñi muy xam ne ni kon lu toll ci juróomi junni ni ay jàngalekat daañu leen jël dugal leen kon euh, ci secteur bi ndaxam lim boobu doy na. waa lim bi xëy na doyul parce que gis nañ ne dafa am déficit enseignants enseignants yi dafa mais boo son excellence le président Macky Sall mu autorisé d'abord déjà ñu def un premier recrutement de trois mille cinq cents enseignants au niveau de l'élémentaire mille deux au niveau de la FASTEF d'ailleurs au niveau de l'élémentaire élèves maîtres yi ñu ngi ñu ngi ñu ngi nekk di subir seen seen formation ci CRFP yi mais loolu doy président ñëwaat indiwaat ne ni ñu euh, recruter waat enseignants loolu dafay wane ne vraiment problème mu emploi des jeunes soxal na son excellence le président Macky Sall loolu moo tax mu autorisé waat ñu defaat un recrutement complémentaire de de cinq mille enseignants d'ailleurs incha allah ministre de l'éducation nationale monsieur Mamadou Talla war na dalal syndicat yi ak acteurs yi nga xam ne ñoom ñëpp ñooy bokk toog xool vraiment les modalités de mise en œuvre de de ce recrutement de de cinq mille enseignants gannaaw conseil présidentiel bi njiitu mi Macky Sall daal dinay euh, taxawal maanaam samp ab euh, plan d'urgence ngir kon wàllu xëyum ndaw ñi loolu ban jàngat nga ci am waa jàngat biñ ci am mooy ne dañuy saluer vraiment initiative boobu nga xam ne président de la république jëlaat na ko encore une fois pour lutter contre le problème de l'emploi des jeunes parce que li fi xewoon temps yee ci ginnaaw muy émeute yi fi amoon président ba mu génnee dafa ne xale comprendre naa leen comprendre naa seeni njaxtu mu daal di bëgg nag jóg pour indi ay solution xëy na am na lu mu fi tegoon tegoon na fi ay mécanisme de financement yi nga xam ne dañuy doon jàppale xale yi di financer seeni projet mais peut-être que mécanisme yooyu dañoo manqué de de pertinence et d'efficacité loolu moo tax mu woote waat woo tous les acteurs ci si kat bërki démb jeudi pour ñu àndandoo toog ñoom ñëpp réfléchir ci yan mécanisme yu bees la ñu mën a tegaat wala yii fi nga xam ne ñoo fi nekkoon ñu jéem ko consolider jéem ko améliorer vraiment pour euh, prendre en compte la préoccupation des des jeunes parce que xale yi problème mu liggéey la ñu am mais président de la république son excellence monsieur Macky sensible na lool lool lool ci problème chômage des jeunes loolu moo tax mu woote woon ndaje boobu pour ñu bokk toog xool naka la ñuy mën a fexe ba vraiment ndaw ñu ñu jox leen ay ay liggéey. yow nga jiite tamit ab bànqaas bi nekk ci ministère éducation nationale nga xamante ne moo yor euh, lépp njàngu njàngamaar yi waaye tamit njàng bi nga xamante ne ñëpp ci bokk yam muy éducation inclusive njàngum jigéen ñi ci Sénégal ndax mën nañu am na. waaw njàngum jigéen bi xëy na avant amoon na amoon na problème. Hmm. waaw parce que dañu gis ne xale yu jigéen ñi dañu jànkonte woon ak ay coono yu métti nga xam ne souvent moom moo doon tere ñu ñu ñu mën a sori ci. ci jàng bi hmm. problème yooyu nga may ma tuuti ma lim ko mooy maye bi ñu leen di teel a maye ak hmm. ëmb yu teel yi nga xam ne daal nañ ko gis xale yi di ëmb ay treize ans ay quatorze ans gis nañ tamit violence yi ak viol yi aussi nekkoon na lool euh, li nga xam ne tamit daf leen daan freiner ci seen ci seen jàng leneen tamit daan na leen freiner ci seen jàng mooy maanaam sumu société yi nu mu tëddee ñu naan jigéen warul jàng góor moo war a jàng jigéen dafa war a toog ci kër gi jàppale yaayam. Mm. donc yooyu yëpp nekkoon na ay facteurs bloquants mais xeex nañ ci xeex ba gis nañu léegi vraiment am na ay avancé yu extraordinaire yu ci am ba léegi mën nañu wax ne njàngum xale yu jigéen ñi léegi nekk na lu dëgg vraiment nekk na une réalité ci fii ci sunu ci sunu réew. gis nañ ne xale yu jigéen yi ñooy ñu ngi jàng bu baax a baax a baax te fi mu toll nii sax tendance bi mooy ne xale yu jigéen yi fi mu toll nii ñooy fexe di raw seen seen seen frères yi. Hmm. donc loolu vraiment dañ ci sant yàlla di ci gërëm état état du Sénégal parce que def na ci liggéey bu am solo sur la la scolarisation des des filles. en tant que coordonnatrice bu réseau national jàngalekat yu APR yi ca commune bu Patte d'Oie ñuy jëm ci élection locale dëgg la naam ñu kañ lay doon ndax xëccoo gi ci am waaye ñu bëgg la laaj ndax am na li ngay mbëbët ndax di nga euh, samp sa ndënd. <laughs> waaw xam nga Gomis euh, merci beaucoup ci question boobu mais xam nga pour euh, commune Patte d'Oie déjà dafa am ki fi nekk jàmbaar bu fa nekk. mu monsieur le maire Banda Diop ma di ko nuyu bu baax sama xarit monsieur le maire Banda Diop ci élection présidentielle bi passée en deux mille dix neuf dafa ñëw ànd ak ñun nekk ak ci Benno Bokk Yaakaar commune Patte d'Oie jàppale ñu ci liggéey bi ñu liggéey fi liggéey bu am solo. te boobook léegi ñu ngi ci dynamique bu am solo di liggéey liggéey boo xam ne pour intérêt APR pour intérêt Benno Bokk Yaakaar donc kooku nga xam ne tey ji daf fi nekk àndandoog ñun ci liggéey bi gisuma lan moo war a tax ma mën a taxaw tey ne damay jongante ak moom au contraire dama koy tàllalaat sama loxo ne ko maa ngi ci wetam jàppale ko ñu liggéey mairie bi teguwaat ci loxoom ñu àndandoo liggéeyal sunu commune. ah transhumant la de est-ce que du leen bàyyiwaat dellu fa mu jëm. déedéet mu moom du dem bàyyi ñu parce que xam na ne le président de la république son excellence monsieur Macky Sall mu ngi liggéeyal Sénégal loolu moo waral mu jóge fi mu nekkoon ñëw fekk si ñu ci liggéey bi parce que dëgg rek m mujj. ñu gërëm la bu baax madame Ramatoulaye Ndiaye Diallo. waa kay euh, monsieur Jacques Mactar Gomis man mii maa ngi leen di remercier bu baax a baax. mooy fàttali kon yow jàngalekat nga euh, nekkit euh, chef bureau genre promotion jëm ci wàllum njàngam njagamaar ñi ak lu ñu duppee inclusion ci ministère de l' nationale nga bokkit ci réseau national jàngalekat yi nekk ci parti APR di la gërëm bu baax.